asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen nag jàmm ay jafe-jafe yu tar la askan bi yeewoo fii ci biir Sénégal di jànkonteel ak njogu dund yi ñuy faral di jëfandikoo yi nga xam ne dafa yokk ba jéggi dayoo ñu ne déet ni waay location bi dal di yokku ndox bi tamit ak courant bi daal di seer ba jéggi dayoo culikaay bii di Sud Quotidien tey jii di ñu xamal ne góor góorgóorlu fu mu nekk ni sonn na góor góorgóorlu dee na góorgóorlu tàyyi na te fu mu nekk ni nag ñoom ña ngay joxoñ baaraamu tuuma njiitu réewum Sénégal di Macky di xaar mu oyofal mbir yi ci seen ndodd moom moom di Macky Sall culikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne ñaari at ginnaaw ba ñu ko tabbee waatee mu nekk ci bopp euh, réew mi ñëpp yaakaaroon nag dina def kémtalaay kàttanam ba fexe ba njëgu dund yi ñu faral di jëfandikoo mu daal di oyof ci kaw ñi nga xam ne ñoom ñooy góorgóorlu ak tamit yeneen mbir yoo xam ne dañu koy faral di jëfandikoo même su fekkente ne sax jël na ay décision dafa mel ni daal ne loolu moom amul benn solo ci ñi nga xam ne daal yéenekaay bii di Sud di laajte kon ñi nga xam ne ñoom ñooy association consumériste maanaam daal association yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkal way jëfandiku yi ñoom ban njëriñ sax daal di yi a a nga xam ne ñoom ñooy association de consommateurs yi am nañu doole goo xam ne mën nañu fexe ba lépp loo xam ne tey ji way jëfandiku yi dañu koo soxla la ñu amee ko ci ni mu gën a gaawee wante mun nañoo njot ne yenn ci ay projet ak i programme yoo xam ne dañu koy tekk fii ci même réew mun na sax tax ba ñu oyofal lépp luy jafe-jafe yi nga xam ne askan wi mu ngi koy jànkonteel ci wàllu projet yooyu sax ak i programme nañ ci jàpp bi nga xam ne mu nga jublu ci wàllu gaz ki ci waxte ci suba moom mooy Ousmane Diagana nekk vice-président bu Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre tey ji moom moo seq waxtaan ak suñu naataango yoo colikaay bii di Le Soleil mu daal di ñëwaat xam ne gis nañu ko fii ci meem réew mu daal di gis ne li ci Macky Sall di faral di wax loolu dalal na xelam moom mu daal di jort kon ne réewum Sénégal mi ngi ci yoon bi nga xam ne euh, bu ci jubalee ci ni mu waree dina suqaliku wàllu élection locale yi ñu dëgmal la ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa diine yi fësal nañ ci seen kàddu di ci woote jàmm culikaay bii di critique mu ngi ñee xamal ne imam yeeg ulema yeeg évêque yi nekk fii ci biir Sénégal démb daal dinañuy fësal benn kàddu goo xam ne mi ngi jublu ci wàllu jàmm ci élection yooyu nga xam ne moom la ñu dëgmal ñoom it di xamle ne faw ñu daal di xaatim lépp lu jublu eh, ci wàllu charte de non violence kii nga xam ne nag moom mooy Ousmane Sonko moom moo njëkk fësal ay kàddoom di xamle ne du ko xaatim tey du ko xaatim ëllëg moom moomu sax di Ousmane Sonko dañuy desandi ak moom ndaxte l'info moo ñuy xamal ne ci samedi bi ñu jógee mi ngi doon waxtaan ak yenn ci ay militangam noonu nag la fësale ay kàddu yu mel ni xeme daal di koy teg ci seen ndodd ndaxte Sonko daal dinay naqarlu yenn ci ay jëfin yoo xam ne gis na ko ci investiture mu dem sax bay laajte ndax ñii nga xam ne tey jii de ñoom ñooy ay militant nga même su fekkente neen bëri nañu macha allah wante ndax qualité gi ñuy xaar ci ñoom mu ngi ci ñoom ndaxte Sonko moom nee na gis na yenn ci ay doxalin yoo xam ne ay militangam ñoo ko def yaakaaru ko woon ci ñoom muy dem sax bay laajte ndax ay militangam gën nañu ñii nga xam ne tey jii dañ leen bëgg a ci boppu réew mi loolu moom moo tax ba Ousmane Sonko di leen wax ne nañu gëm seen bopp te def seen kéemtalaay kàttan ba daal di ci wàllu élection locales yi nga xam ne moom la ñu dëgmal tey ji colikaay bi di la mandat du ñu xamale ak ñett ñi nga xam ne ñu siiw lañu ci ëttub tasub xibaar yi te ñoom it nekk ay candidat muy Seydina Oumar Ba bu Walf TV Mamadou Ndoye Bane bu RFM ak tamit Ahmed Aydara bu Sen TV ñett ñooñu ñëpp nekk candidat di xëcco wàllu mairie colikaay bi di la mandat ne du guleet li ni mel ñu koy nemmeeku fii ci biir Sénégal joriñ gu ñu dénk wàllu jàngale bu kawe yi démb daal di nay fësal ay kàddoom ngir naqarlu ko ba pare daal indi ay tontu ci yenn ci ay laajte yoo xam ne ñoo ngi ko ci doon fësal culikaay bii di l'évidence du ñu xamal ne ci wàllu fàttu ba bakken benn étudiant ci université Bambey kii di Cheikh Oumar Anne di na ci jukki ci tension yi amoon ci université yi ak tamit nañu jalgatee lépp lu jublu ci wàllu franchise universitaire yi kii di Cheikh Oumar Anne indi na ci ay précision ñaari député yi di Mamadou tey jii dinañu leen déglu ci kanam anamu yoon réew mi quotidien moo ñu koy yëgal du ñu xamal ne ñaar ñooñ ñu ngi leen di toppee ci mbirum njuuj njaaj ci wàllu passeport diplomatique njuuj njaaj tamit daal dina ñu koy nemmeeku ca poste foofu sax waa division des investigations criminelles daal dina ñuy gis ne am na ñeenti milliards yu réer mer ñu daal di teg loxo kii di El Hadj Abdou Aziz Diop ak Mouhamadou Ndiaye ñoom ñu ngi leen di joxoñ baaraamu tuuma jolekaay bi di Vox Populi du ñu xamal kon ne koppar googu na nga ko détourné ca trésor public ba fu mu nekk mel ginnaaw enquête ga mu ca def teg na ñi nekkoon percepteur bu Saint-Louis ak Mbacké ñu jeexale ko wàllu tàggat yaram stade yéeni kaay du ñu xamal ni Coupe d'Afrique de Nations bu ñu fas yéene amal ca Cameroun kenn du ko dàq kenn du ko yóbbu ba ci yeneen jamono ki ndeel li ni mel moom mooy Patrice Motsepe mi jiite Confédération africaine de football ci wàllu lamb ginnaaw ndam li nga xam ne nag kii di Tapha Tine am na ko ci kaw Boy Niang 2 dafa mel ni nag ne combat bi ñu bëggoon taxawal ci dàq jolikaay bi di Les du ñu xamal ne ñi wër kii di Balla Gaye ñoom sawaratuñu ngir daal di jàkkaarloo ak kii di Boy Niang 2 li sax moom la Aziz Ndiaye daal di xamle ci biir jolikaay bii di sunu lamb ndaxte moom gëm na ne daal kii nga xam ne de moom mooy Boy Niang 2 nekkatul seen priorité Boy Niang 2 kay mun na xaar ci lu tolloog benn at jàpp ñaari at ndaxte kii di Balla Gaye numéro 2 ñamu soxla fi mu nekk nii du ñeneen ñu dul Eumeu seen ak Bombardier lii moo nekkoon bokk jolikat yi li gën a fës ci biir jolikaay yii ñu leen di ñaanal ñeexte dugg ba sa jàmm Mesdames et messieurs, bonjour. Les ménages sont à bout de souffle. Gorgorlou souffre à cause d'une hausse généralisée du prix des denrées de première nécessité, mais pas que, car le loyer aussi coûte cher, de même que l'électricité et l'eau. Et cette nouvelle situation, selon Sud Quotidien, plonge les ménages dans une atmosphère infernale. Les pères de famille pointent du doigt le président Macky Sall, qui deux ans après sa réélection, fait actuellement face à un véritable défi. Et toujours position actuelle celle du chef de l'État qui est entre l'enclume d'une hausse généralisée des prix de consommation et le marteau d'une ambition d'investir euh, sur le capital humain ne lui laisse pas beaucoup de possibilités. Et qu'en est-il du rôle des associations consuméristes Nos confrères de Sud Quotidien trouvent que les consommateurs sont laissés à eux-mêmes car le plus souvent, la légitimité de ces organisations est remise en cause car n'ayant aucune visibilité sur dans les pays développés et de l'Occident qui disposent même de laboratoires pour s'assurer de la qualité et le suivi des produits sur le marché. Ces associations consuméristes donc, faute de moyens, ne parviennent pas aussi à s'imposer pour influer réellement sur les politiques ou asseoir des contrôles effectifs et le suivi des décisions qui soulagent les consommateurs. En tout cas, on espère que les différents programmes et euh, projets établis par certaines institutions finiront peut-être par soulager un peu Gorgorlou. Et justement, en parlant de programmes et euh, projets, il y en a certains qui sont en cours et c'est le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui en parle avec nos confrères du journal Le Soleil. Ousmane Diagana a accordé un entretien à nos confrères où il réaffirme l'appui la Banque mondiale au Sénégal dans

ont lancé hier un appel à la paix à l'endroit des acteurs politiques et des populations, une initiative salutaire au regard de la ambiante et des réticences notées dans l'acceptation d'une charte de non-violence. Ousmane Sonko a été le premier à déclarer qu'il ne va pas signer cette charte et justement, en parlant d'Ousmane Sonko aujourd'hui dans le journal L'Info, nos confrères nous font savoir que c'est un véritable procès que a de ses militants et sympathisants. Le leader de de PASTEF qui s'offusque du comportement de bon nombre de ses camarades de parti lors des dernières investitures, soutient à qui veulent entendre qu'au sein de son parti, il y a certes de la quantité, mais peu de qualité pour diriger un pays avec tout ce que cela exige comme désintéressement et don de soi. Et Ousmane Sonko trouve que la plupart de ses militants ne sont pas différents de ceux qui le combattent et qui veulent dégager du pouvoir. Il les invite à croire davantage au projet qu'il prône pour construire le Sénégal et à mettre l'intérêt général au devant. Toujours concernant les élections locales, aujourd'hui, nos confrères du journal Le Mandat nous présentent trois hommes de médias qui ont maintenant décidé de porter ouvertement la casquette politique. Il s'agit entre autres de Seydina Oumar Ba, Mamadou Ndoye Bane et Ahmed Aïdara. Ces trois vedettes de la radio et de la télévision Kër Massar Nord, de Pire et de Guédiawaye. Et notons toujours avec nos confrères que le fait que des professionnels de médias se lancent dans la politique ne date pas d'aujourd'hui. La proximité de ces personnes avec le public peut donner une piste de réflexion quant à leur tendance à demander le pouvoir dans le but d'améliorer le quotidien de leurs concitoyens en détresse. Le ministre de l'Enseignement supérieur, cher Omar Anne, brise le silence. Il s'est l'université de Bombay et le non-respect des franchises universitaires. Et selon nos confrères du journal L'Évidence, hier, le ministre a apporté beaucoup de précisions concernant l'affaire des passeports diplomatiques. Retenons avec nos confrères du journal Réumi Quotidien que les députés Sall et Biaï seront entendus aujourd'hui. Et dans le quotidien LAS, nos confrères nous parlent de ce scandale à la Société nationale de la Poste. Deux agents de la boîte, à savoir pour ce qui est de El Hadj Abdul Aziz Diop et Mohamedou Ndiaye, deux agents de la Poste, ils seront déférés aujourd'hui au parquet pour détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs, escroquerie et complicité d'escroquerie en chef. Nos confrères du quotidien LAS qui nous parlent de ce scandale au niveau de la Poste nous informent que le préjudice est estimé à plus de milliards de francs 1,6 milliard de francs CFA au trésor public avec la DIC qui a placé en garde à vue les ex-percepteurs de Saint-Louis et de Mbaké. Terminons par le sport, report ou annulation de la Cannes Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, qui est au Cameroun depuis hier, a indiqué que la 33e édition de la Cannes ne sera pas reportée. Donc retenons avec nos confrères du quotidien du sport stade que la Coupe d'Afrique Cameroun. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.